yàlla moom seen fay daal yàlla leen yàlla fay fu yëpp maa leen sant kulul dof fu bu nekk Tëngéej ak fu bu nekk Kees ak ak fu bu nekk man la si Grand Yoff ak ak fu bu nekk Kolda ak fu bu nekk Casamance ak maa nga nuyu kulul dof dof yëpp maa ngi leen di nuyu. waaw. kon biñ ne suba la combat bi. ci ci ci ci samedi ba nga doog a jugee mbaake xaw ma tuuba ñëw man nekk xam nga Bou Siteu moo kon xamut fu ma nekk. moo ngi naan Mbàkke naan naan naan kii nit bi wax day xam li ko man fa ma nekkoon maa ngi woon Jurbel samay njaboot maa ngi woon samay njaboot Jurbel fa ma dëkk fa laa nekkoon moo kon naa ay bu naan ay Mbàkke ay tuubaa day wax lu ko neex rek. daan yoru xam-xam bu mat daan. nag loolu da koy metti ginaaru kokkoli. ginaaru kokkoli boobu ma dama koo daan. dama koo daan damaa yor preuve bi leer. foo ko nag foo ko dinaa ñëw dinaa ñëw ci combat bi. loo gis ba mu dawee laal sama tànk lu muy gaaw gaaw gaaw gaaw gaaw daf naa rotation ba ngoobu loxo bii man Malick Ndiaye sànni sama benn loxo ba ñuy ñëw wàcc suuf ma fàq ko ba ma koy fàq mu dóor dënn si si kaw saako bi saako jël la arbitre yi ñun avant ñoo bëre danaan saako mais mais mais est-ce que arbitre yi gis nañ loolu mais arbitre yi mën nañ bañ a gis loolu tamit joxe victoire loolu mënoo ci dara te billaahi wallaahi watalaahi ak sama bakkanu doom bu may bëri ji combat bi nee na ma di ko daan waaye moom la ñuy jox victoire barki arxuraane karim kan moo la wax loolu samay say nit wala say sëriñ loolu naka la mën a nekk dama ko ci làmb ñu wax la ni làmb ji demee. bu ma amatee mille combats yàlla nañ ma dóor ma daanu barki Alxuraane Karim yàlla bu ma tekk ci àdduna sëñ Afia laa yaakaar àdduna ak lu ma liggéeyal sëñ Afia yàlla ma si yàlla may dërëm laa la wax. billaahi wallaahi watalaahi woo naa jëwrin jëwrin woo na ma téléphone man Malick Ndiaye moo ko ko du ma bàyyi ma fen mu ngi nii Abdou Ndiaye woo na ma téléphone ma ma wax ko. am na samay boo yu ma woo téléphone ma ne leen combat bi bu ma ñëwee dinaa daan Bou Siteu mais Bou Siteu la ñu jox victoire kenn du ma jox victoire xam naa ko